il me réconforte. davantage. c'est-à-dire lui. ce dis, dégloo. sais que c'est règlement de compte parce que <clears throat> au-delà du règlement de compte. Mhm. parce que moi interroger l'histoire mhm. de l'élection présidentielle. Mhm. Moi, mais lan lañ ko jijuwul fii ci élection présidentielle. amul lu luñ ko jiiñul. Mhm. ci élection présidentielle. dëgg la mais su intérêt général taxawee. Mhm. da ngay fàtte sa intérêt bopp. dëgg la. Aïssatou est-ce que xam nga ni am na ku njiitu coalition bu mag a mag a mag boo mag. Mm. bu waxtaan ak borom kër gu weex ki deux jours avant les élections. Hmm? ne ko dañu ñàkk élection yi ne ko opposition bi day perte. parce que il a travaillé pour la perte de cette. dëgg la njiit gu mag. Mm-hmm. parce que il a travaillé pour la perte de mm-hmm. l'opposition. parce que battre campagne bi mu battre campagne. seul. Mhm. parce que nag c'était de la c'est de la prétention ah parce que jàppoon na ni moom ba muy wax lii les 35 pour cent ah, la foogoon. ba muy dem di élection présidentielle parce que nee na kenn jàppale ko les 35 pour cent ñoo ko ak moom moo ko moom mais tey nax na boppam parce que amul 5 pour cent. kii ñoo ko donc pour dire que lii <coughs> day réconforter nit ñi. ci li ñuy wax ni intercoalition amul. Mhm. parce que fi wara and def fa bloc demandoo ensemble yëkkatandoo barbarandoo mm. day am benen bir su nga suñu waxtan waxtaan mm. coalition yu magi musuñu and mm. parce que ku ci ne da ngaa bëgg raw sa morom pour wane man maa deug deug la muy sam sa kàddu mm-hmm. muy takk wallu mm-hmm. muy jam ak ndariñ c'est-à-dire la guerre de positionnement politique mm-hmm. dafa feeñ ci élection yi <clears throat> la guerre de positionnement politique. Mhm. parce que le Taco mhm. voulait récupérer la mhm. position de man pour député Manement au pouvoir par rapport à Amodouba Amadouba voulait le faire. le Sam sa voulait montrer que nous existé. lu division bi dafa dafa flagrant flagrant tu comportes comportement non c'est vrai tu as raison. Yo y dans da ngay élection xam nga lu ko firndeel. Mhm. <clears throat> à Dakar. Mhm. dans le département. Mhm. y a des gens qui ont voté takk wàllu. takk wàllu am na fi ay voix. te waru fi woon am ay voix. am na ay zones yoo xamante ni sàmm sa kàddu am na fa ay voix te waru fa woon am ay voix. donc travail de communication bi waron tax nit ñi comprendre l'intercoalition mhm. amul té lu travail de communication bobu amul parce que les gens n'ont pas travaillé ensemble mhm. ku nekk da nga amone ce comité électoral bop mhm. ku nekk ku nekk da nga amone direction de communication ah mais bien sûr muy sam sa kàddu muy tak wàllu muy jam njëriñ te ñom nee intercoalition des difficultés yu feeñ. deug la té su lolu amé Ousmane ah. Sonko day jaar ci prox ndoll bi. Mhm. duma leen. toog naa fii ne leen suñu séparé wo da di duma. Mhm. té lolu am. Mhm. lolu am. ils se sont divisés da leen di duma duma yu metti té duma len duma na duma yu metti lolu moy ci mbirum intercoalition. ce qui a fait.